l'actualité gay en continu actualité bi ñu fas yéene li nga xamné nak moy donc 2023 li nga xamné nak mo ci xaw mais aussi Sadio Mané qui va manquer l'année 2023 nañ ci day ay ak après qui de Edouard Ndiolko moom ñu dogoore Mendy Graham Potter moom dafa bëgg a wu ci ki nga xamné moy donc Kalidou Koulibaly loolu yëpp la ñu fas yéene indi ay leeral mais d'abord gars dañuy wax rek sa su nekk di len souhaité meilleurs vœux ci atum 2023 euh, ci atum tubaab bi de ñaan également yalla na dàq atum 2022 euh, victoire ci Sénégal am yëpp yalla na ci yeneen topat gaay di ñaan aussi képp ko xamné am nga torof torof suñu borom teggi la sa torof torof ñi nekk ci hôpital suñu borom génn leen fa ñi nekk ci kaso aussi suñu borom génn leen fa ñi amul liggéey suñu borom may leen liggéey ñi amul soxna suñu borom may leen soxna mais également lepp lu doomu ma di wut rek suñu borom may ko ko mu ci zaahir ak ci batin gaay et merci encore du du courage merci également de nous accompagner di ñu jàppale ci liggéey bi parce que yombul ben yoon mais quand même toujours vous êtes là gaay yi ñoo wax jaa ngeen jëf mais 2023 am na ñoo commencé wul ci ñoom normalement parce que ki nga xam Rémi Cavella, ancien joueur de Marseille mom dañ ko la di cambriolé gis nga mom néna voilà bonne année 2023 moom dañoo ñëw sàcc ay càcc daal ñoo dugg kërëm ci année 2023 bi dajji ko cambrioler ko jël li nga xam ne moom la amoon lii nag di 2023 bi aussi lii mooy maillot d'entraînement bu donc waa FC Barcelone donc mu ngi nii donc Footy Headlines moo ko daal di fësal maillot bi daal mooy maillot entraînement bu waa FC Barcelone ci saison 2023 bi ñuy waaj a euh, jëm après li nga xam ne aussi mooy donc seen maillot bi nga xam ne tamit gars yi waajal nañ ko maillot 2023 2024 bu waa FC Barcelone mi ngi nii ah, gis ngeen ko Footy Headlines moo ko daal di fësal donc lii daal Blaugrana yi fas euh, sol ci at gii di ñëw mais du ñoom kese parce que waa Bayern également saison 2023 2024 bi aussi ñoom ñu ngi génne seen yenn ci seen i may entraînement yi et tout gis ngeen ko benn ci mayo yaa ngi nii ah, donc mi ngi nii Footy Headlines aussi moom moo ko daal di euh, fësal le club bavarois donc de Sadio Kaiser magnifique Mané donc mi nga xam ne moom mi ngi en convalescence maanaam mi ngi faju boobu ba léegi ki nga xam ne également mooy. Anthony le joueur euh, brésilien mom nak euh, rend hommage ki nga xamne donc le roi Pelé mom mi Manchester nee na ko repose en paix Pelé wa donc roi Pelé bi nga xam ne gars yi nag moom euh, dëddu na ci année 2022, bi ki nga xam nak également aussi mom ngeen xamé du benen joueur bo xam aussi il est brésilien du côté de Newcastle momit rend hommage roi Pelé ndax maillot Pelé la seul mom sax hein donc dugg ak mom ci terrain bi pour rendre hommage cette légende du football mondial nga xam football bu eggee fi mom amna ci patch gu rëy bu mu ci daal di te nag de West Ham nga xam ne actuellement Moses gars yi ne dafa war a jóge ñett la ñu ciblé pour ñu daal di ñëw mën ko remplacer bokk na ci Pochettino ki nga xam ne mooy donc euh, Thomas Tuchel ak également euh, Marcelo sa ñom dal ñoo nek ci liste bi pour ñëw remplacer Moyes mi nek foofu na ci West nga xam mi ngi enchaîné défaite des retours et retrouvailles entre Hugo Lloris et également Emiliano Martinez Aston Villa ak Tottenham ñoo wara a ñaari gardiens yi nga xamné ñoo final won ci coupe du monde bi ñom ñoo fa wara a daal di euh, daje jongante jongante boo xam aussi duel de gardien la nara. Don, doon Barça Barça dafa nërmeelu mais ñi nga xamné nak ah, donc moy euh, donc euh, ñi di donc Gavi ak également qui de Lewandowski hein donc ñom ñaar donc gis nga leen ñuy wane sen trophée su ma nee Barça dafa ndar mbéru mooy que ne démb ñoom lu mënti dem amuñu ndam ah ci seen diggante ak li nga xam ne mooy donc seen adversaire kii nag di Kylian Mbappé mooy le meilleur buteur de l'année 2022 l'enfant de Bondy l'attaquant de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain moom daal moo ëppale but ci saison 2000 22 bi nga Mbappé c'est 56 matchs 56 buts Allende, 46 matchs 43 buts Lewandowski 42 matchs 51 buts 53 35 euh, buts pour Taremi hein. Taremi Taremi aussi gars ñu wax mais l'attaquant euh, donc de Porto attaquant il est très redoutable en hein. centième euh, fois il est décisif avec le Manchester United Qui nga xam moy Marcus Rashford nga mais Manchester ñu gagner il est à 65 buts en et 35 passes décisives en 100 donc 100 fois mu daan nekk jour bu décisif avec Manchester United Gerson nag jóge na définitivement ca fa nga xam ne mooy ca Marseille dellu ca Flamengo moom mi nga xam ne nag ah, bu yàgg la ñu waxoon dafay jóge mais ay ñàkk déggoo moo amoon ci ñaari club bi finalement mu jógee na fa dellu na ca Flamengo bi mu nekkoon ndax jàpp na ne Hugo Tudor daal joxu ko cër bi mu ko war a jox ñii ñooy gaynde yi war a représenté Sénégal ci 2023 bi ci CHAN bi kii nag di Pape Thiaw génne ab listam listam boo xam ne nag am na ay surprise am na ñoo xam ne jàppoon nañu waroon nañ ci mën a bokk bokk ñu si am na ñoo xam ne également ñi ngi ci en tout cas daal li Sénégal baa ngi nii ñu leen di ñaanal dem gàmm ñëw gàmm am ndam loolu lañ di ñaanal 2023 également commence toujours mu ngi niroog li mu dàmbale woon pour ki nga xam ne mooy donc kii di Pape Matar Sarr parce que Pape Matar Sarr ba léegi il n'est pas titulaire avec Tottenham mi ngi waat ci banc bi l'enfant donc de Thiès mi ngi ci ban bi ñu koy ñaanal nag 2023 gars yi dàq 2022 moo gën a am temps de jeu parce que loolu lañ koy ñaanal il doit avoir du temps de jeu le fils de Sidar Sarr le milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal booy boo xam ne booy bu am talent la booy bu am avenir la mais li may yaakaar rek mooy li may ragal rek mooy que ni Tottenham tardel ko ci progression Benoît Badiachil kii daal la Chelsea daal di tànn déggoo sax am na moom ñu ngi wax contrat wu xaati mu juróomi at pour mu daal di ñëw concurrencer mais éjecté ki nga xam ne mooy donc kii di Edouard Ndiol plutôt kii Kalidou Koulibaly gannaaw bi nga xam ne Edouard Ndiol moom mi dogore mel ni moom

la saison 2023 nek na saison bo xamné suñu sénégalais war nañu prouver notamment Edouard Ndiolkoumba mi Mendy ak Kalidou Koulibaly ñom ñaar ñoo gën a en danger si et le club Sadio Kaiza magnifique une année magnifique ni avons ko gis na sa yenn donc euh, yenn kay dal dikoy une année magnifique pour Sadio Kaiza magnifique mané bi nga gagné une coupe du d'Afrique, hein, donc euh, gagné euh, ballon d'or africain nek deuxième au ballon d'or européen malheureusement coupe du monde bi retardée. tardé Sadio Mané qui aujourd'hui est devenu le premier africain bo xamné jël nga deuxième ci ballon d'or bi bi nga xam ne George Weah rek mo jël ballon d'or bi Sadio Mané donc aujourd'hui qui rejoint des légendes comme Drogba Eto'o Weah donc mom nak 2023 yi na nek année bo xamné Sadio Mané dina ko manqué en matière de euh, prix ah, loolu nak lutax tax moy que ne buñu def prédiction 2023 mille 2023, gars yi amul ben compétition bo xamné day am pour deuk africain yi amul ben compétition buy am ndax coupe d'afrique bi gars yi janvier 2024 mille la ko gars yi daal di mais buñu xol gis ngeen ah, donc di di am donc mooy 15 février duel bi à Manchester City lay don ak euh, Arsenal pour titre Marseille Paris Saint-Germain mais également surtout li nga xal moy tournoi international gis ngeen ah gis ngeen ko mi ci souf ni donc ligue di ngeen gis ni conférence ligue day am ah final ligue des Nations Ligue des Champions Yep, dina am peut-être Ligue des Champions bi bu fekkee Sadio Mané euh, qualifié nañu ak Bayern Munich mais à part ça amul compétition africaine boo xam dina mën a peser ci li nga xam donc lii euh, Ballon d'Or bi war am ci 2023 bi mais Sadio Mané en tout cas l'inconnu ñu d'abord mooy mu février bi mu daal di rejoindre équipe bi donc équipe nationale du Sénégal mais aussi Bayern dominique mais Sadio Mané a fait une année exceptionnelle comme ni Sénégal defee gars yi nag woy di like woy leen di abonné toujours un plaisir de vous servir on avance ensemble dans la magie des sportives yi gars yi